ci yàlla xanaa xam loo ne sëriñ Moussa wax na ne maam Cheikh Anta ku am doole ci yàlla la dañ ko gis noonu kattan gi mu yor ci yàlla sax nit ñi xamuñu ko waaw ah, nee na Cheikh Ibrahima noonu na tuutee tere wàlliw du am ci kaw suuf waaye Cheikh neen mboolem seex yu mag yi ku ci masaan bëgg génn àdduna bi sëñ bi laxoo bu la sëñ bi woo maam Cheikh Anta ngay gis mag ñi dañ ko xamoon dañoo mbaa gis ko maam Cheikh Anta nga ñu ne kon de yaa ngi fi indi xamoon hmm. na fonction yoo xam ne ci yoon wi neexu la wax de maam Cheikh Anta sa waa sëñ Moussa Ka daa tëdd bu guddi maam Cheikh Anta feeñu ko ne ko kay wuy sëñ Tuubaa <laughs> moo ko bind de nee na mën a teg ne ah loolu de loolu de moom moom jeex na kon waaye nag xaaral ma daw ci koo xam ne kii ku jege sëñ Tuubaa wax ko mu waxaat mu wax sëriñ bi mu bàyyi ma fi xam ngeen ku ku ku sëñ Moussa Ka dem soxna Fat Jaxate ndeyu sëñ Saliou parce que sëñ Touba ci moom la dem <laughs> ne ko ni nga jege sëñ Touba gisuma ku ko jegee noonu te maam Cheikh Anta woon na ma mu ne ko bàyyil ma wax ak ñoom ñu bàyyi la fi ba ci kanam ndey sëñ Saliou <laughs> moo tax ku la man am na fu mu la mënee bu yàgg te yëgoo meloom wii xam nga ne du neen de sëñ Saliou hmm? meloom wii <laughs> am na fu ah yëpp waaw moo ko ne bàyyil ma wax ñoom ñu bàyyi leen ba ci kanam sëñ musaa nekkaat na fi lu yàgg hmm? bu ko defee sëriñ bi am na soxna sum doon waxal ne ko xanaa xamoo ne nattu yi àgg nañ ci def ma nii ñu daan def xarum